euro laa ya, yor ak dollar laa ya, yor ak loolu dina nekk kumpa ñëpp. Mhm. sama business du business nit l'essentiel mhm. maa ngi baax. Mhm. loolu benn la ñaar Amina ah, tey laa ko gën a nopp tey la ma gën a nopp. Amina ah, ci kattanu yàlla iya man maay nekk dernier jëkkëram. incha allahu taala. loolu yàlla suñu borom moo ci mën dara. dama koy tëddee di ko waxee di ko jëfee. Amina boo doon daggali ndey daggali bàyyi sax du tax ma bako.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 toog ñoo dëgg la dëgg la moom ci internet waaw dëgg la moom am fu ma toll du nit moo may delloo ginnaaw mhm. non mënul nekk dëgg la sax xam nga ne ma fii New York fi ma nekk Amérique nit yóbbu ma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 ñu ngi yéex kay rumeur boobu dama la cee fàttee laaj sax ndax damaa xam ne lépp ay kii la moo dama bàyyi mu sedd laaj mën a ji sax temps baa ngi dem de te bor bi lay gën a yàgg lañ ñëw boog balaa affaire yi jeex <laughs> baax na Malick maa ngi lay jaajëfal jërëjëf jërëjëf jeex na gars yi